ñaareel. waaw ah, lii la mu doon. sama ñaareel. waaw mooy sama ajjan. Ah. moo gënti man. waaye nag xamal naa leen leen de. waaw yem fii laa ah, war a fii. <laughs> yow kay da nga dem ba wax na yu siiw rek. lu baaxoo <laughs> ñu wax. gis nga nag ñaas kumba. waaw wala son sonn. waaw léegi kii laa yor. neel ni sonat gi ma wala. baaxooñ mu ne. ñaareel la moo ko gënal aawoom. nga ñaareelam moo ko gënal awoom woo. baal woo ji juuf. ah awoo ah, mooy waxi la. tey ñaar damaa sonn yow it man hmm. sama aaw. Ah. yamaru ma ko lan la yàlla bind. Ah, gis pam lekk new. ma ne la yow yaa ngi may dégg. waaw waaw dégg la. moo ma gënal ñëpp ah, wax naa ko fu ne. ah dafa naan. ah <laughs> yéen fi mu ne nii. Ah. waaye moom day yaatu rek. Hmm. Ah, waaye soxna moom kilifa gën a xam ñëpp. waaw waaw waxi ñaare nag waxuma ko dama ñaar rek almeeraay ma ne. waaye xam nga ni was ñett. wax wax wax cin da cee tegu. dana cin moom lu ñor a cee toog. dégg nga dégg nga sama ñetteel yemul am na ci loo xam ne nag. waaw ma ko waxee fi moom. <laughs> ah <laughs> fii di. déggal ah, sëriñ ah. ah, ko wax fii. waaye gis nga sëriñ bi. mais kuy gis pom di lekk new ah xaw ma agamu. man kuy gis pomme di lekk néew. amul de. dégg nga man suma aawa suukar la. waaye koy suma ñaareel lem la. waaw dégg nga lii moo tax suma bëggee ba damay naan ñaareel suukar lokk ko bañ doo saf la. <laughs> waaw man sama gel bi aga tooy. Oh. bu laa yor. ala bu tooy kay. kii ñu ko ñaareel moom mu ko. a ko boole ci jërëjëf tooy kay. waaye ka da ngaa wérul ni yow nga ni lan si man lañ nekk de maa lool wax loolu de hmm. gis nga bi waaw sama man sama yaram maa ngi ko yëg xam nga ñun boo ñu jëw dañ koy xam sama yaram bi mi ngi mi ngi raf nii kii man lay jéem a warax ma ne nit kay boo nekkee ci yàppam ci deram kay di ko vivre wala mu muy yëngal kii man lay jéem a maase du ko def ni yow nga ni bu deewoon tay jii. ah ñëw su célibataire bu bon la. du loolu nga ma wax. Diouf Diouf du loolu nga wax. eh eh yow la yeen yeen da ngay a rew ya ah nee na fi rek boo deewoon it dana lay bala ñu la sul takal la jabar doog la sul loolu baaxul yow itam da da ngay a rew la wax. waaye khan mi kumay waxal. yeen ñepp lay waxal rew ba dox ngeen def. waaw ñëpp khan ñu nak yow bo yéen jaamu yalla nan da ngay di jëw Yo xam yow ya, yow sa dang ma yàq. way doo ma def len la duma la def dara doo ma def len la man ni la man mii lay wax yow soxla ko ma ci yow soxla man ki man ni lay wax duma la door ay xir day yow tay la lay mbeuk ba nga to bo yalla tawal xey way suma lay way way muy way suma way suma Seruhan mang seruhan seruhan seruhan mang seruhan mang sama idisu ngay sama eh eh eh Woi sumande yo. Eh? Di Woi. kuja. Mana kai? Fimna kai ma rew new. Woi, Séeréer. uy su ma ndey. lu la dal. Kodja. Kodja mos nga gis ñaari xar yuy mbekkente. loolu da xanaa bi may xale laa gëj a gis bi may xale. Kodja nu ma Saaro xaan def looloo a ah kon raina lah, raina lah na la de. suma yaram bépp ay métti. Massa Massa Massa. waay Massa ay waay Massa. waay bopp bi mooy eh Massa. wa naam sëmu. waay. eh ah eh. Ada sëmu. taw séeréer séeréer ana se mu dama lay nax rek ñëwul punya, waaye sabu ñëwul dama lay nax rek taate mu we waaye ba koy ñëwul tëdd rek day ñëw fii di ma ñëw du ñëw waaye xunja yooyu bu ko fi punya moom nga xam ne dafa bëgg torom booy bëgg a dee boo ko mu ñëw fii baal bu doon xiir bi la yor sax di caw sa xiir waaye léegi bopp bi la yor di mbëkke bopp bi li mu ngeen nag waaw di mbëkke mel ni dofu ma tey yeew waaw tëddal tëddal da ah. nga moytu sa feer yooyu balaa muy toog yow dama tali feer ah, way su ma ndey. ah masa. way su ma ndey salaamaaleykum. waaw yow looy naaw ni toogal eh, toogal. Dóorxaan eh, eh, Baye ma. Dóorxaan Baye ma. defuma la dara. su ma la def dara. Semu bàyyil jàmbur. bàyyi naa ko. nit kenn du ko topp ba mu sës. moo tax ma baal ko nag. ah sama li ngay def baaxul nag. ah xewar gi nag laa la indil xewar. ah yaaram la xewar. waaye nag ma wute day jaay de. way dama yor tus. ah yoroo. ndiki defal ma ko crédit nga def si promotion. ah i waaw ba tey. waaye lépp naan nag réglé rek. semu war ngaa mën a dóor kii mbëkk ko ba boppam bi rëcc. nga di ko jaay ay ay xewal. maa tey parce que nit ñi ñoo war a réglé. yow sax léegi dangaa commencé réew waaye boo dof dof maa tey maa tey. eh apaa xaw ma apaa xaw ma apaa xaw ma apaa xaw ma waaw li ci kiiral du ci man. léegi léegi xiir ah, ah. teg naa ko ne bii laa woo. Ah, ok rëj rëj ba ngeen toog rek ma xaaral wala sa xiir ak sa si. way suba ndey. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa boo ko jullit yi gannaaw ba ñu leen nuyoo ziyaara leen ñëwaat ak yéen ci seen jàngat yu am solo yi bii nag ci li muy wax mooy euh, nit koo xam ni dafay jëw wala ay waxam da koy luñutu rek ci suuf gis ngeen boobo mi ngi wax ci séemu ñu ngi nekk ci jataay muy wax ci moom ba séemu dégg ko di jàppante ak moom loolu nag dafay am lu bari ci sunu réew wala ci sunu société mooy ay nit bu nekkee lépp lu nu bëgg a waxante nan ko waxante ci kaw maanaam boo amee lu la metti ci nit na nga ko woo ko ah diw man de nii nga defee xalaate wu ni gis nga léeg-léeg nga nekk ci réunion kenn du jël kàddu waaye suñu génnee rek mu bëgg a feesal li ko naqari loolu képp ku koy def bu mbooloo ma tasee yow ya ko tas kon képp koo xam ne yaa ngi ci barab ak fu mu mën a doon lépp lu nuy wax soo ci amee xalaat joxe ko ci saasa loolu mooy jikko jullit looloo tax alquran ñëw ni wala yartab baadukum baadan أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم mbokk jullit yi yàlla bi muy laaj daf ni ndax bëgg ngeen kenn ci yéen ñu teg ko ay moroomam di ko lekk te fekk dafa dee ñu ni mukk mu ah, kon kuy jëw sa moroomu jullit noonu nga mel moo tax na ngeen ragal yàlla ndax yàlla kuy jéggale la te kuy yërëme la moo tax beneen xadis ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax wa iyaakum wal riba fa inna al a ashaddu min az zina inna rajulu yazni wa yatubu allah alayh wa in saaxibal riba laa yaxfiru llahu taala xata yaxfira lahu saaxiba gis nga xadis ba dafay wax ni eh, jëw jëw moo gën a garaaw fuuf njaalo mu ni ndax njaalo soo ko defee jéggalu yàlla subhaanahu wa taala daf lay jéggal donte ni baaxul mu ni waaye nag bu dee jëw yàlla du la jéggal lu may waa ji nga jëw moom ngay dem ni ko ah waxal naa la nangam ak nangam kat mu soog lay jéggal kon mbokk yi jëw lu doya doya doy waar la kon ñu ñëw seen seen naafila ñaar fukkeelu guddi ak juróom-ñett da ngeen di def ñeenti raka raka bu ne day am benn fatiha ak juróomi wa tiini wa zaytuuni wa tuuri siniin ak juróomi qul yaa ayyuhal kaafiruuna laa a'budu maa ta'buduun ak juróomi qul huwa allaahu ahad allaahu samad ba mu jeex ja'alana allaahu min alladiina yastami'uuna al-qawla fayattabi'uuna ahsanahu assalaamu aleykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh الدم يخل